jërëjëf mbokk Sénégal ange billahi mina sheytaan rajim bismillah barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam seen mbokk seen jaam Ousmane Noël eh, dama def vidéo bu gàtt rek euh, pour jéem a leeral li nga xam ne c'est très important parce que boo nekkee ndaw ay nit bëgg la waaye bu bu wet gi la bëggee si wet ga am na ñoo xam ne bu ñu sañoon tey sa fan ah dagg nga dem nga dem yobal xeer am na ñoo xam ne tey bu ñu sañoon tey tey tey tey tey ma faatu waaye am na ñoo xam ne tey bu ñu tey ma am téeméeraat damay leer ma yónnee léegi benn vidéo ci suñu jarbaat bébé Moussa bu jógee Kaolack feebar nga xam ne euh, sama jigéen rafet jikko bi ma ko yónnee woon ma ci jaamu yàlla teel rek tax nga xam ne yàlla suñu borom def ma ma am tur waaye yàlla suñu borom def ma ma am baat man a xaaral ma yuuxu su ma yuuxu jaamu yàlla yëpp sot sotoo ko boole ko ci ngir jàppal ko à ma grande surprise euh, suñu mbokk moom di Mansour génn tey mu ne Ousmane Nawel wax dëgg yàlla Ah, journaliste bi sax moo ko posé question ma xam naa ne c'est des questions yoo xam ne dañ ko préparé xam nañ ñu muy demee ndax journaliste bi soo gisee ñu su posé question bi dañ ko préparé ko wax ma lii su ko defee ma tontu lii waaye dama ne leeral rek leeral bi may leeral nag du du dara damay bañ bàkkaarloo jaamu yàlla yi parce que man dama fonk jaamu yàlla ndax yàlla li ma def moo tax may bañ a bàkkaarloo jaamu yàlla yi ndaxte ñoom lu ñu wax yëpp dafa am preuve te preuve yëpp laa lañ tegal boo leen xoolee ci PC yi wala ngeen ci dagg-dagg vidéo yi lépp laa lañu tegal mu bëgg ma bañ kenn di si am bàkkaar te bàmmeel dafa xat bàmmeel dafa lëndëm te yàlla suñu borom laa koy séedal yàlla ma tiim suñu borom rek laa koy séedal man jëf ji may def yàlla moo tax ma koy def te tere kenn mënu koo arrêté ndax yàlla moo tax ma di ko def euh, Mansour nee na Ousmane Noël xale bi en charge en charge lay wax damay ñaan Sénégal yi ñu génn benn vidéo bu ma waxee man teel naa xale bébé Moussa en charge. jugee Kaolack incha allah maa ngi Kaolack dinaa ñëw hôpital Abbas Ndao dinaa xool li ma mën ma def si gars yi xool leen xool leen bi ba ma koy wax lan laa wax ak ba def li ma mën chaque weer ma joxe ceeb joxe diwlin joxe joxe nangam xool leen li ma wax baax xool leen seetaan leen bi. dégg naa yaa ngi hôpital Abbas Ndao allah rabi dama nekk Kaolack nii waaye su ma ñëwee Kaolack su ma ñëwee dakaar incha allahu rabi. feeg suba billaahi wallahi taalaahi dinaa la seet si fa nga nekk xool lépp lu ma mën ci xale bi dinaa ko def bu soobee yàlla waaye jàppal ne am nga rakk bu góor yow soxna si weer bu dee chaque weer bu dee ma incha allahu rabbi feeg yàlla nga koy mën loo feeg maa ngi am li may am yàlla li may wërsëgalee dama ko wërsëgalee billaahi wallahi wa taalaahi barki Cheikhu Tidiane chaque weer dinaa la wàccal saabu ceeb dinaa la jox diwlin dinaa la jox meew dinaa la jox suukar teg ci li ma ciy teg addil naa ko yonent yàlla Muhammad fekk yàlla ma koy mën loo dina am sa numéro dinaa xam sa kër chaque weer dina am ko woo indi sa kër incha allah en plus euh, dégg naa euh, sëñ Mansour xam naa ne ngay ndeysaan li nga bëggoon ci affaire bi mooy tur ndax ni nga waxee ak ni nga insister sama jëmm ji sama jëmm ju xeebu gi mooy xam naa danga nga foone man dama dama réew récupérer sa tur man Mansour am nga ci yàlla ba pare yow yaa jëli xale bi Kaolack nangu nañ ko yow yaa indi xale bi hôpital nangu nañ la ko waaye bu mu tax nga foone ma dama ci am tur ñëpp naan Ousmane Noël di ma ci remercier sentu mu ci remercier xool leen sama ngir yàlla sama message yi ma jàll yépp dama ne xooluma ci ku ma ci sant xooluma ku ma ci remercier ba ma ñëwee acte bi nga def laa xam ne acte bi nga def laa xam ne yow bëggoo woon sax ma ñëw foofu noonu parce que da nga ci bëgg tur acte bi nga def ba ma ñëwee da ma ma ñëw def sama discours ak paa bi yëkkati li ma am jox ko ba ma defee discours bi ba mu daw seen yaram ba ngeen jooy ngeen indi bébé Moussa di ma xam loo ne ma bébé Moussa soo gisee lu ñu nëbb ko sama xarit bi rafet jikko daf fi ñëwoon keroog dugg fa ba mu fa duggee jël numéro def ko ci nangam te boobu ba léegi jotoon xaalis ma la déet rafet jikko lu baax laa ko xamal rafet jikko soxna su sell la kon donc comme te mi ngi dajale leer na ma yàlla dinañ dajale xaalis bi jox leen ko bu leen ci lii bu leen ci indi coow ndax Bébé Moussa xale la ñu ngi ñaan yàlla mu wér ñaan yàlla mu tane jarul coow jarul yàq jarul jarul xëccoo man li may def c'est éternel jusqu'à ma mort allah allahu yi dama koy def te seen wax yi du tax ma arrêté ko man damay dimbali jaamu yàlla man li mission la ci man man dama ñaan yàlla na ko soxla ma ministre soxla ma député soxla ma nanguwaay soxla naa nekk lantinoor yàlla la may def ci lu baax Bébé Moussa moo ci gën a tuuti ñi may dem dimbali ci hôpitaux yi bii moo ci siiw man hôpitaux bu ne dugg naa fa ñëpp mën nañu ma seede ci hôpitaux yi ñëpp na nañu ma seede ci ordonnance sama kër Kaolack day fees dell bébé Moussa moo gën a tuuti ah, ah, donc euh, ba ma ñëwee dama bëgg mu leer rek yow nga ne man juróom fukk junne laa jox paa bi yow xam naa ne taalibi Serigne Touba la Serigne Touba bu ku màgg Serigne Touba ku sell Serigne Touba yaakaaru jaam man taalibi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif la radiyallahu taala anhu yaa ngi dégg Euh, ma gëm sama sëriñ nga gëm sa sëriñ waaye ñoom ñëpp dama leen di teg leen fee te di waat ci yàlla subhanahu wa taala te xam ne moo tax ñu bind ko billaahi wallaahi wa taalaahi barke alquranu karim ba ma ñëwee nga ne yow juróom fukk jaar yow paa bi billaahi wallaahi taalaahi yaa ngi bàkkaar te di nga tooñ la ma jox góor gi ëpp na ko fuuf d'abord ëpp na ko fuuf d'abord yow ba ma ñëwee yaa ne ma bébé Moussa bii rek du fi malaat yaa ma ko wax indi naa beneen bébé boo xam ne mi ngi jógee Fuuta soo leen mën a jàppale ma wër saan ba may ñëwee dajale naa ñaari million àddal ko yonent yàlla Muhammad ci ay nit ñu baax man je suis pas un milliardaire man yoruma benn poste de responsabilité yoruma ay milliards yu na gagné sama compte amul un franc barki Cheikhou Tidiane je suis pas en train de me glorifier sama compte amul un franc waaye yàlla laa am yàlla laa am ba fu lu ma bëgg lijjanti naa ko lijjanti ba ma ñëwee deux millions de francs def naa sama poche ba may dem un franc topp de francs ba ma ko joxee dugg naa si saa lépp Ndaw yéen a may seede hôpital Abbas Ndaw yéen a ngi sage femme yaa ngi may seede ñëpp nga seete vidéo yi xool leen vidéo yi ngi jëm Seydina Mohamed vidéo yi ay seede la moo tax yàlla yàlla yàq koo xam ne yàlla yàq bu ko da ngay juum ma bañ nag yaa ngi bàkkaarloo Sénégalais yi yaa ngi indi ba Sénégalais yi bàkkaar Mansour yow jëf ji nga jëf ba nga ñëwee dama ñëw nga ne ma am na yeneen mbiri Moussa ci biir ma dugg ci saal bu ne ñii ma jox leen deux cent mille ñii ma jox leen cent mille ñi ma jox leen cinquante mille ñi ma jox leen cent mille ci ci bunt ba laa commencé ci suuf ci bunt ba du ma du wax parce que soo gisee may wax lii la nga wax pour setal sama der moo tax ma di ko wax mais nga doon dund ba kenn du ko ci bit laa commencé képp kuy malade ci bunt ba buntu Abass Ndao ba ci biir saal lépp laa wër yëkkati deux millions te bébé Moussa feebar bi mu feebar am na ñu ko gën a feebar fuuf am na xale boo xam ne dafay jalis jalis xale bu ndaw di jalis am na koo xam ne problème mu asma la mais su ko fàttee bu ko yóbbu yóbbal xëyam am na koo xam ne dafa am insuffisance rénale di jëlee chaque jour que jëfee ñoo ñoo gën a sonn bébé Moussa fuuf kenn ku leen dimbale ma ñëwee gis bébé Moussa ma xaaj jox li may jox bébé Moussa jëlaat li ma yor parce que mosoo dégg ma ne bébé Moussa jël naa ko am naa sañ-sañ xaaj jox li ma yor di wër si saal yi deux cent mille cent mille cent cinquante mille kon yow ni nga insister sama tur bi ma xam ne dafa nekk sa ginnaaw muy politique bu dee politiciens yi nekk sa ginnaaw pour nga yàq sama der bu dee politiciens yi ñoo nekk sa ginnaaw pour na la waxal li démentir la tu te trompes bu dee da nga foog aussi yow li nga def yëpp yaa dem ba Kaolack délibé Moussa te Sénégal man man nañ ci gis te dama ci am tur billahi wallahi taala jëlal lépp yow Mansour yaa def lépp Mansour yaa jënd camion Mansour yaa def lépp te dama lay wax ne geste bi nga def keroog nga ne ba may ñëw ne paa bi ne ko danga jàppale ci million da def geste boo xam ne xamoon naa ne geste boobu yow li ngay def gëmoo ko parce que da nga def benn boo xam ne da ñëw gars xool leen vidéo bi ma lañ dafa jël cinq millions ne teg nga ci un million di defante mel ni kuy defante ak man te man yàlla moo taxoon may def. 15 millions benn 20 millions laa soxla ngir jëm Seydina Mohamed man sama doole fu mu yem dugalagum naa un million man Ousmane Noël feelumaa bi ma dajal li ma yor dugalagum naa un million man sama doole fu mu yem te pareeguma bébé musaa bu tëdduloon papam du am lii ndax feebar bi yéegaayu maqaama la. yal na ko yàlla talal ci dara yéen ci amul tamit su maa ji njëkk a wuy si ndax maa ko wooteloo jox na Papa Moussa un million man soobu teg naa ci cinq millions cinq millions ñu defante keroog ñu def ko ci salle bi ñëpp dañ dañ dañ la xeet parce que da nga mel ni kuy defante ak man jël cinq millions ne man Mansour jël naa cinq millions sama alal la maa ko ci teg sama alal la maa ko ci teg ma defaat beneen discours ne Sénégalais yi sant leen Mansour ne Mansour ne la jël na alalam liggéeyul dafa jël na alalam moo teg cinq millions nga dem ba tiit nga tiit jaaxle na ah lii def doy na waar nga ñëwaat change discours nga ne cinq millions yu ma Sénégal yi jox Mansour kon yow yaa jubut kon war bu yàq sama der di jëma Seydina Mohamed nga ne cinq millions yi ma Sénégal yi jox mi ngi nii te yow da nga da nga doon defante ne man teg dagaan naa ci cinq millions sama xaalis te yow cinq millions gars yi corrigé yow su fekkee gars yi dañoo corrigé su fekkee gars yi dañoo joxee cinq millions yow góor jox looy téye cinq millions lii sénégalais yi nekk ci biir réew mi ci bitim réew mi ñoo ko dajale jaarale ko sama loxo. ba léegi ñu ngi wax ci camion man de ma kenn ku ma dimbali. dinaa fexe ba mu mat treize millions ma jënd camion man kese jox ko Ousmane dugg na ci Ousmane lii na léegi. xam lu doon gën maa neex. kaay kaay lu doon ma gën maa neex dana xaalis bii. parce que tamit jaamukatu yàlla la ñaanal. xaalis bii jaamukatu yàlla yi nga xam ne ñoo si dugal seen loxo kon pour ñu gërëm jaamukatu yàlla yi. Mhm. mais jaamukatu yàlla yi dem Mansour moo joxe woon numéro Sénégal jaamukatu yàlla yi dem dajale ñoo dajale ba mot 5 millions jox ko. loolu tey 5 millions bu ko téye joxe ko joxe moo gën ak donc loolu Bébé Moussa tawul coow. da nga mel ne kuy defante keroog ñu déggoo ci salle bi ñëpp dañ la dañ dañ la xeeb parce que da nga mel ne kuy defante ak man jël 5 millions ne man Mansour jël naa 5 millions sama alal la maa ko ci teg sama alal la maa ko ci teg ma defaat beneen discours ne Sénégalais yi. sant leen Mansour na Mansour ne la jël na alalam liggéeyul de jël na alalam moo teg 5 millions nga dem ba tiit nga tiit jaaxle na ah lii def doy na waar nga ñëwaat change discours nga ne 5 millions yu ma Sénégal yi jox Mansour kon yow yaa jubut kon war bu yàq sama dara ngir jëma Seydina Mohamed nga ne 5 millions yu ma Sénégal yi jox mi ngi nii te yow da nga da defante ne man teg dagaan naa ci 5 millions sama xaalis te yow 5 millions gars yi corrigé yow su fekkee gars yi dañoo corrigé. su fekkee yaa dañuy joxee 5 millions yow góor gi nga war a jox loo téye 5 millions. lii sénégalais yi nekk ci biir réew mi ci bitim réew mi ñoo ko dajale jaarale ko sama ah, loxo. ba léegi ngi wax ci camion man de ma ma dimbali. man kese jox na ci Ousmane lii na mat. jërëjëf jeex léegi. xam nga Mansour. lu lu doon gën maa neex moo tax dëgg xaalis bii. parce que tamit jàmm ko la nga ñaanal xaalis bii jaamukatu yàlla yi nga xam ne ñoo si dugal seen loxo kon fu ñu gërëm jaamukatu yàlla yi. mais mm-hmm. jaamukatu yàlla yi dem Mansour moo joxe woon numéro Sénégal jaamukatu yàlla yi dem dajale ñoo dajale ba mat 5 millions jox ko. loolu tey bu ko téye joxe ko joxe ko moo gën donc loolu bébé musaa talul coow bébé Moussa talul caaxaan bébé Moussa dafa feebar ñu koy dimbale man man dama si gis sama bopp comme si bu nekkoon sama doom parce que ba mu naan sama biir bi day métti loolu dama ne mi ngi mel ni sama doom moo ko wax. kon nañ def lu rafet politiciens yi bu ñu tax nga yàq loo xam te di di yàq sama der te alors que ñëpp xam nañ ma man man ñëpp xam nañ ne social ñaat nit laa jël en charge ci loo xam ne mbindeef xam ko ñaat nit lay dem hôpital dimbalante la xam ko te kon yow sa wax ji mooy tax estime bu Sénégal yi am ci man du sa ji mooy tax euh, maanaam cofeel gi Sénégal am ci man mu yàqu ndax Sénégal yi xam nañ ma ba pare man damay def te yàlla tax li mission la bokk ak yow man damay missionné li mission te ñaanuma yàlla mu jeex su fekkee dafa am producteur yu nekk ci yow nag jéem a génn ci lii su fekkee yow yow lii liggéey nga ko def dangay ngay oo nit ñi nit ñi dimbali la nga dem jaamu yàlla man nag man owuma kenn man damay taqale li ma am dem def ko teel rek tax peut-être yàlla mooy def loolu ci dara yàlla mooy siiwal jaamu yàlla yàlla mooy jël jaamu yàlla bu ko neex lu mu wax ja jaamu yàlla yëpp jot si. peut-être yow wax nga ba sonn kenn jotu si man ba ma waxee jaamu yàlla yëpp jot si loolu yàlla moo koy def waaye nag jéggal naa la jéggal naa la du ma la toppee dara. baal naa la àq te baal képp koo xam ne rek commentaire nga ci wala wax ci wax loo xam ne suur moo la ko yóbbee ndax bàkkaar la te bàkkaar xaju si bàmmeel te ku ne day dee dinañ la takk suul say bakkan suul say bakkan euh, suul say nopp takk sa ñaari tànk takk sa ñaari loxo dugal la ci bàmmeel te bàkkaar bu bari ci bàmmeel ah gars yi jaru ko te yow yaa yóbbee Sénégal yi ci bàkkaar bàkkaar boobu nga la yóbbee nag jéggal naa leen lépp ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaanal yàlla bébé Moussa yal na ko papa bébé Moussa mi ngi tudd Abdoulaye Sow papa bébé Moussa ba mu ñëw xam na la ma wax dafa fàtte bébé Moussa dafa fàtte bébé Moussa xam na ma wax Ousmane Nawel dama la bëgg jàppale ci politique dama la bëgg utal base jàppale ci politique ma ne ko sëñ loolu fi toll nii nañ focus si bébé Moussa yàlla saafara ba pare man soxluwuma politique soxluwuma am tur soxluwuma sax nga jàppale ma ci politique xam nga nga may xam ma naan mun na su ma ko bébé Moussa wéree ba dellu sa kër si ngay doo ko xam man kan laa man man soxlawuma politique xanaa kon kon kon ko lu ma wax leer na ba pare gars yi xanaa déglu leen sama vidéo bii may wax ne man Ousmane Noël lu tuuti laa ci def Sénégalais yi def nañ ci lépp gars yi ngir yàlla xanaa li leer na déglu leen sama vidéo bi may waxee man Ousmane Noël maa ci gën a néew la ma ci def ci bébé Moussa Sénégal def nañ ci lépp. yenn yàlla def ku teg bët Moussa ba dugal sa dërëm. parce que man man man gis nga man lu tuuti laa ci dugal par rapport yàlla man la may tur yàlla may ma nangam waaye par rapport ak nit ñi lañ ci def man lu tuuti laa ci def barke Cheikh Tidiane yàq der jaru ko adduna jaru ko alal jaru ko bay Moussa yal na yàlla saafara ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi man social c'est mon truc man j'aime social c'est mon moom laay ñaan yàlla bu ma dàqal ministre bu ma dàqal député bul bàkkaarloo Sénégal ngir yàlla je suis un homme social te je l'aime j'accepte dama ko bëgg sama xol te pareegu ma de maa ngi nii duggaat ci commentaire yi duggaat ci jaamu yàlla yi su ma ñëwee maa ngi ni bitim réew bitim réew laa nekk maa ngi Maroc su ma jógee Maroc incha allah rabi mardi prochain war naa dugg ci ay hôpitaux parce que am na hôpitaux yoo xam ne yu bëri oo nañ ma ay malade yi nga fa toog amuñu ordonnance amuñu lu ñu lekk war naa duggaat defar lii lii si laa dëkk Mansour tu n'as rien compris man lii si laa dëkk chaque semaine chaque vendredi man ci hôpitaux yi sama jabar suñu waa kër sa yëguñ ne man ci hôpitaux yi man chaque vendredi man ci hôpitaux yi te sa yëguñ ko bé Moussa moo am tur moo bindoo nii affaire siiw ko